bon visionnage. waaw ah, nuyu naa leen bu baax a baax grand Ousmane maa ngi lay ziar bu baax Cheikh Sarr ñu lay ziar bu baax waaw am na solo de wax dëgg yàlla delloo si bi sax day wax dëgg yàlla ñun dana tax sax ñu xam sunu erreur yi nga xamante ni ñu ngi koy wax ak yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel waaw vraiment am na solo lool lool lool mais nag gars yi ndaanaan rek. <laughs> mel ne ay grand Khadim Ousmane ah Cheikh Sarr Mamadou ah ñoom uh, Dieye Leyti ay champion la ñu de yàlla xam ne gis nga booy waxtaan ak ñoom sax da ngay da ngay am xam-xam quoi da am xam moom des fois moo tax su échange jotee mu ànd ak dal rek xam-xam commencé génn damay sawar a dugg quoi waaw damay sawar a dugg lool ndax dama ci jëlee xam-xam bu baax a baax ndax des fois sax ma poussé nit mu wax loo xam ne si euh, peut-être loolu laay bëgg wax ko quoi. Mhm. waa mais. <laughs> non gars yi ay ndaanaan dëgg lan damaa toogaat di déglu ojo yi quoi xam ne gars yi moom ay champion lan vraiment ku ci mel ni grand Ousmane bu xereñ loo <laughs> moom xam naa ko ndox digganteem ak Modou moom ah <laughs> Diop Diop ñu ngi ziar lu bëree bëri vraiment wax lu am solo commentaire yi am na solo macha allah. affaire yi moom làmb ji moom ñun ñëpp xam nañ nu mu demee xanaa kay far mooy amat xam nga féete moom dafa metti li gars yi di wax naan ñaari ginaar bu ñuy xeex sax il faut nga am foo féete da ci da ci ne mais wax dëgg yàlla moom kontaan naa lool ci affaire yi. moom xaadim maa ngi lay ziarat bu baax a baax sang bi ñu ngi lay ziar bu baax waaw xam nga commentaire loolu da ciy neex des fois xëy na nga défendre loo xam ne sax yow doo ko gëm mais li nga koy défendre mais da nga koy def à cause de pour yow ki ngay defal face à face. wala ñi lay ñi nga bokkal débat bi ñu gën a mën a yaatal waaw loolu mooy débat maanaam nga pousser nit mu wax kooku man nga ñëw indil ko loo xam ne si yow sax li ngay wax gëmoo ko mais da ko jéem a défendre pour moom mu ñëw wax la carrément qu'est-ce qui se passe waaw débat bu tranquille rek ñun yëpp ciy jariñu xam-xam day yokku ak ku mu mën a doon nag laa la wax nii ak loo fees fees loo bëree bëree bëree bëree xam-xam ak nu mu mën a mën a mën a mel mel débat bu amee force nga yokk ci force nga xamee ci loo xam ne si yow xamoo ko woon te loolu nag day faral di arrivé ci alu làmb bi ah waaw man moo tax ñaare bu xawee daal tuuti rek xam-xam commencé génn rek damay damay sawar a participer daal vraiment te gars des fois moom mooy loolu macha allah ay kàngam a fi nekk de ay kàngam dëgg dëgg sax a fi nekk dëgg ay ponkal. non Diop la mais franchement tey moom tey moom euh, tey moom tey moom yaa ngi commentaire lu neex a neex. c'est vrai wax nga dëgg ah. li nga wax dëgg bu wér péng la Modou yooyu sax du ci dugg moom danaan la ba arbitre di tëj barrage bi rek waaw Modou mooy mbër moo xam ne moom du la ne lii laa lay def moom danaan la xaaral bañ tëj barrage loo mun nga def ko waaw moom moom loolu la lay wax. bala ngay tamit en général moom bu la ne bu arbitre ne pipe deux minutes laa la may parce que day songu day songu ci deux minutes yooyu bu la jàppee mun na la see daan xam ngoom naa la wax ni la sport yëpp moo am naufrage loolu tubaab di wax naufrage diig day am ci sport yëpp naa la jox rek ci cadre football xëy na daan gars yi daan ni ma bokkul mais Bayern bi muy dóor euh, Barça 8 man gars yi naa na 8-2 may dama naa leen 8-1 parce que benn bi bi contre son la kon dama naan 8 8 euh, ah, di tooñ waa yi doonte man Barça la ne laa 8-2 bi mu ko koy dóor mais kooku naufrage la. bërki dem Liverpool dañ ko dóor 7 de lañ ko dóor ci championnat West da ko dóor 7-2 loolu naufrage la te loolu score yooyu maanaam loolu aussi day am ci làmb nga nit dina nga ñëw ci biir combat ni mu koy tëggee ak ni nga ko doon jàppee nga ñëw ba ci biir combat bi mu yomb la ci yow yomb koo xam ne si na nga jàppoon ni nan nga ko def mën nga ko def nu ko gën a ñaaw waaw mën nga ko def nu ko gën a pur maanaam da lay dikkal da ngay ñëw jàpp ni combat bi mën naa jafe nii nga ñëw rek xoolal port boo laal ci biir kale euh, boo def rek yàlla yombal ko ba dóor mu daanu ñu mën cee ñëw wala nga ñëw def ci exploit boo xam ne si kenn du ko foog te yow kooku tey tey boo demoon ba ñu tëggaat la yéen ñaar loolu nga ko defoon doo ko defaat parce que mënewoo ko noonu loolu day am day am mais li may wax rek mooy Ama Baldé ku ko yombalal combat ak Modou Lo yàgg ko xañ waaye Modou Lo ku ko yombalal combat ak Ama Baldé rek non damay jàpp ne rek jàppale jàppale woo ko. ñoo ngi jaar di jaar Cheikh sar moom di dugg si noonu mais xam nga job man fi ma teg sama fi ma li may commentaire ni man fi ma ko teg yaakaar naa ne képp koo xamante ni faroo rek te xam làmb di ko fa teg parce que modlo modlo mooy mbër moo xamante ni mbër mu naqaree bëreel la modlo li ko di def mennum Balla kese kese kese kese moo ko def modlo waaw mais bu weesoo ke Balla Gaye amul keneen ku ko ko mën a def waaw te la tax tamit mu di ko ko def mooy taay bi bokkuñu taay ba pare Balla gay moo gën a yaatu Modou ba pare am victoire ci kawam maanaam dafa taxawe point bu leer ci digganteem ak Modou moo tax à chaque fois rek day compliqué ci Modou mais Modou Lo mbër mu naqaree bëril la mbër la moo xamante ni boo indee xeex mu xeex yow boo indee bëre mu bëreeg yow bu la neexee mu gaaw bu la neexee mu yàgg loolu benn mbër laa gis ci loolu muy Modou Lo amul lu muy tiit ci combat mbër yi ngay gis nii yëpp ku ci bëree quarante cinq minutes jeexal takk Modou mën naa bëre yow bañ def prolongation te fam ne woon ba léegi lay ne yaa ngi dégg Modou mbër la moo xamante ni du du nekkul ne damay wax nii nii de mais li may wax nii mooy li nekk Modou booy wër athlète yaa ngi dégg ak mbër mu compartir macha allah demal ci Modou Lo wóor na yàlla te ku farul ku nekk te wax te làmb rek di nga xam ne Modou Lo mbër la moo xamante ni mbër mu naqaree daan la boroom jom ngay gis noonu. waaw ndax fi mu ne nii tey boo xoolee Balla Gaye Balla Gaye ay combat bu yàggi combat bu yàgg mënu ko combat bu yàgg mënu ko te Modou Lo dafa bëree nu nekk Modou Lo dafa bëri combat bu gaaw bëri combat bu yeex yaa mooy dégg. te Modou Lo non daal macha allah nekkul ne nag dama ko faral man damay wax rek li ma gis ci moom laay wax Modou Lo du mbëru mbëru kii nii de mbër moo xamante ni day fooy ay kombaam wala da ngay ñëw rek jaxase ko daan ko dem non non non non Modou Lo du genre mbër yooyu Modou Lo kombaam ak Bombardier waaw grand Ousmane ziar na la maa ngi am jàmm rek maa lay ziar bër waaye di ziar gaay yëpp quoi di leen kontaane waaw gis nga de tey nag dama doon déglu rek xam nga. waaw di déglu champion yi quoi ndanaan yi ci kër gi ah macha allah seen waxtaan bi moom tarka la quoi am na solo lool vraiment waaw waaw gisoo sànq maa ngi wàccee vocal yooyu pour pour euh, ñi nga xam ne comme dégloo guñu quoi comme sa ñoom bu ñu ñëwee rek ñu commencé foofu quoi ci audio yooyu parce que vocal yi dañoo xaw a kii waa bëri loolu la quoi mais waxtaan bi moom am na solo lool. tarkal la quoi macha allah daal en tout cas. non tey moom waxtaan bi neex na ko neex neex neexoon na te daloon na ko waaw bëriwutoon mer quoi te tey moom gën naa xam gars yi seen niveau toll quoi wax dëgg yàlla tey moom waaw tey moom gars yi gars yi wax nañ lu leer quoi tey moom affaire bi neex na quoi te bariwutoon bëriwutoon ay sorxo sorxo quoi xam nga waaw tey moom wax dëgg yàlla moom. moo taxit waxtaan bi yéeg yéeg na YouTube waaw bii moom kontaan naa ci quoi. waaw jàmbaar combat bi dina ne de dina ne torop torop sax parce que combat bi moom Tapha Tine moom ak Boy Niang Boy Niang moom bëgg na wane boppam quoi wane bëgg na wane boppam si combat bi. amoon ko xam ne yow nga ne doo bëri Balla Gaye doo bëri Lac de doo bëri Bombardier doo doo bëri Boy Niang ah. yow bëri sargol kenn Sa Thiès ah après yow instant yi <laughs> toll nii kon yow boo jiyee roi de sargol ah yow yow kon bu roi wul du am sens amaana daal lu may lu waay yi wax rek lu Mamadou Gueye wax rek lu Ousmane wax rek amaana daal saa yi na rek saa may may ngóor mu jàll ngóor si am xorom si gars yi rek ngóor si dafa am xorom si gars yi quoi ngóor si dafa am xorom quoi ngóor si dafa am xorom de ngóor si moom fu ñu lu koy tax a day fok day fok day fok tan min dafa rëy quoi mi mod los sama mbër boy oh Cheikh sar Cheikh sar ki sa way mi ngi fessel téléphone jambour yi de wala bok ah ili mi dugal ci photo dafa bari trop modlo Lo ngay dugal liñ ko def fi liñ ko fi def mo ngi fi fi mom amul kenn ku fi mën a waaw yow modlo Lo ñuy. daan barki démboo njaay ngay xëy di ko dugal fii di sonal nit ñi chaque jour ak fauteuil Modou Lo wala da ngay doog a faral Modou loo fii ñu la gën a faral Modou Lo rek a fi ne sa waaye te tranquille